njiital kilifa yi fi teew yépp ñu ngi leen di fësal tey suñu mbégte dalal gan yu mag yi gan yu sell yi fii ci jaxaw ñun ñëpp ñu ànd di màggal bés bi suñu maam bu Sine Coumba Ndoffène seede woon Serigne Touba fële ca Ndar en 1909 ba seede jafe ba wax dëgg jafe bés bii nag dafa di bés bu am solo ndax tey ñu ngi fàttaliku suñu maam Bur Sine Kumba Ndoffène di ko ñaanal moo ñamu mu àndaloon ndax nekkul ne moom kese moo demoon yàlla xare leen arjana waaye bés bii dinañ ci ay njàngale ndax suñu maam valeur ya mu amoon di jom fulla fayda ak dëggu ba fekk jullit bu ñu nar a noot di ko sosal mu taxaw temm teggi tuuma yooyu noonu loolu lu am solo la te tey yaakaar naa ne valeur yooyu tey dañoo tumurante ci suñu réew te nag réew kenn mënu ko tabax ci tappale ci sos wala yeneen ak yeneen moo tax may woo jeunesse bu Sénégal du sax yem ci jeunesse bi waaye askanu Sénégal ñu delloo suñu xel di wax dëgg di ko jëfee yàlla jàppale ñu ci suñu réew mii fi ñu ko bëgg a ñu jëmale ko foofu di ñaanal le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax nit ki boo nekkee ci gaal bul ñaan bul ñaan gaal gi suuf boo ñaanalee ki jiite gaal gi yaakaar naa ni kooku bu amee jàmm ñëpp dinañ am jàmm te Sénégal nag mooy suñu gaal donc ñu ngi ñaan ñaanal le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mission bi ko yàlla teg mu matale ko ak jàmm ak salaam di woo monsieur le ministre secrétaire d'État à la culture tey ñu mu gën ñu jàppale ci ñu revaloriser les valeur culturelles revaloriser aussi tey yii ñu fi yii fi suñu maam bàyyi ndax monsieur le ministre tey yow mën naa wax ne doomu siin nga tey am na tey yu bëri réalisation yu bëri yoo xam ne war nañ ko mën a fësal pour que ñu jaay la destination Sine à travers vraiment le royaume du fii ci Jaxaaw tey euh, doon ko biram ñu la koy wax léegi am na ci yenn mausolée yu bëri yoo xam ne nii boo ci taxawoon war nañ ko mën a gën a defaraat mu gën a yàgg boobaa dina am ay repères yu fi bàyyi suñuy suñuy rakk suñuy doom et cetera kàddu yi daal laa amoon lu may sànni pour le moment waruma gudd comme dama am dama war a def discours de bienvenue maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant wasalaam. rek nuyu leen parce que ki nar a waxal association bi mooy président communication professeur Meissa Touré man li ma leen di wax dafa simple fàttali ne. buur Siin Kumba Ndoofeen kenn moomu ko ñun ñépp a ko moom kenn ëppale wu sa moroom ndax buur Siin Kumba Ndoofeen ba muy dem demul woon moom rek bu demoon moom rek la mu doon mébét foog naa du ko mën mais dafa ànd ak waa Siin ñu commencé ko ci couche nga xam ne ñoo nekk ci suuf béykat ba sàmmkat baag uude baag forgeron baag géwél yaag nit ñu set ñi ñu koy waxe ñeeño yi ak ñépp la àndal pour sàmm kàddu siin parce que dafa wax tourné wax ak ay mbokkam mbokk yi ne ko de façon di wax ñoom yow ñoo koy ànd ñoo koy sàmm ma ne nañu jël organisation bi ñu def ko suñu organisation kenn ëppalewul sa moroom nañu ci dugal suñu loxo alhamdulilah metti woon na metti na mais disposition yi nga xam ne moom lañ jël tax na ba ñu mun a organiser organisation bi ndax ku nekk ci ñun lamb nga sa poche fa mu gën a profond lu fa am nga génne ko am ay doomu siin yoo xam ne dégg nañu situation bi ñu ne màggal ga mënut a fomm dinañ ci dellu si ak ñi nga xam ne ñoo nar a wax ma donc dama bëgg wax rek ne boo buggee ku la dimbalee ku la ku jàppale na nga commencé gën sa bopp defal sa bopp lu la ca fekk muy lu ca yokk donc maa ngi gërëm ñépp waa Sédhiou sant ñépp mais monsieur le secrétaire d'État da nga ma permettre avant que may terminer sur votre autorisation que j'adresse tous nos remerciements et nos reconna a Madame le gouverneur de Fatick, entourée d'une équipe formidable, cette dame qui est à de la population, au service du pays, parce que c'est un soldat du pays. Les institutions, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Et elle est là pour servir avec les serviteurs de l'État. Sous vos ordres, monsieur le secrétaire d'État. Le sous-préfet est devenu un membre de la famille. Le sous-préfet, je peux dire, est de la l'organisation de l'association du témoignage du Moussim Mandofin. Avec ce manteau, il est avec nous. Avec le manteau de celui le peuple, il est avec nous. Sous vos ordres, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le préfet, Merci encore de votre accompagnement et de votre écoute. Nous sommes très sensibles à tout ce que vous faites dans l'ombre en tant que technicien. Voilà ce que je voulais dire yéen baal ma dama doon nuyoo rek mais ki yore kàddu bi mooy may sa Touré wasalaam. Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla fayal gannaaw ba ñu sant yàlla buur bi subhanahu wa jullu ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gën gi mi ndéef jaajëfal xaadimu rasul sant Cheikh Ibrahima Fall Lamp mbooloom Cheikh yi Serigne Touba si ñu ngi jaajëfal buur sil ko mën Ndofène Diouf teraayam bii yàlla nay noflaay ci moom ak mboolem ñu bokkal xeetu nday ak xeetu bàyyi liggéeyal góor yàlla rek a mat a def loolu la def liggéeyal Serigne Bamba dina ko fay fii fay ko yomal xëyam sunu taxawaay bii Serigne Touba ko waral ñuy nuyu di sargal le secrétaire d'État à la culture ak délégation bi mu àndal ñu ràññee ci préfet de Fatick monsieur Dramé le sous-préfet de Diakhao le maire de la commune de Diakhao toutes les autorités administratives administratives bàyyiwuñu kenn buur le roi ñoxo bàyyi ñi ngi lay sargal di la nuyu di la ziyaar di la sant di sant comité d'organisation bi ñu boole ci ñu war a jël kaddu kàddu gu ñu jël ñu ngi koy santewaat maami alaaji Galas Mbakke ibnu Sëriñ Baara mi toog fii ñu koy nuyu di ko màggal ndax fidélité am ak loyauté am lu xew jaxaw wala Fatick gis nañu taxawaayam sëñ bi Mbakke ñu ngi lay sant di yóbbante suñu cant ci kilifa bu mag bu baax la ñu ngi nuyu di sargal la Linguère Seynabou njaay yaa ñu dalal teraanga yi bari na yal na yàlla fay ci barke Serigne Touba di beral nuyoo sunu tonton Maysa Touré muy ànd bu yàgg boo xam ne bi goro la ci ñun di nuyu le ministre mi ñu yëgal bool ñu ci organisation bi commune Ndofène Bouna juuf ñu ngi lay nuyu du nuyu mboolem membre ñi bokk ci organisation bi di beral nuyoo tonton Abdoulaye Sène di beral nuyoo Abou Émile Diouf le maire de la commune de Diakhao defe naa wax naa ko bu amee ku ma fàtte ngeen xam ne xel day fàttu waaye nuyu naa ci ko tribune bi yëpp mais samay koor ñu ngi lay nuyu waaye di beneen nuyoo xaar Diouf docteur xaar maye koor Diouf ndax yéenay sunu bunt ci dëkk bii yéenay sunu bunt ci kër gii ñu àndandoog yéen ànd bu rafet Fatick lu ñu sëmb ngeen ànd ko ak ñun ñu bokk di liggéey di liggéeyal Serigne Bamba loolu war nañ ko seddeel mbooloo mi te xam ne ñu ngi leen di sant gërëm bokk yi dëkk bii ñu nekk muy jaxaaw nga xam ne dañu fi màggal témoignage bu màgg boobu nga xam ne jafe woon na te yombul woon seen maam ju baax di def ko may wax monsieur le maire de la commune de jaxaaw sa prédécesseur yi fi nekkoon li ñu defoon lu baax te ma xam leen ñoom ñëpp benn par benn kenn ku nekk am na lu fi defoon monsieur le maire ñi ngi lay wax ne dëkk bii di jaxaaw yelloo na kër sëriñ Bamba yelloo na kër sëriñ Touba kon nag sa prédécesseur yi fi nekkoon defoon lu yow li nga war a mën a def balaa sa bi di jeex may ñu kër sëñ Touba ñu bokk ak waa kër Bour Sine ak bokk taalib yi tabax jaxaaw gi kër sëñ Touba bu ñëpp xam ne fii kër sëñ Bamba leneen li ci des mooy dëkk bii di jaxaaw wax fi war na ma ndax yàlla lim dogal ci man ci bëggu sëriñ Bamba may taalibam sëriñ Touba waaye bokk fi ndax fii ci jaxaaw CM bii nekkoon fii nga xam ne yàlla dogal na man mi maa ko réalisé au temps du septième fête ak ndéem si yàlla Jaaji Senghor mu nekkoon euh, le le le président des parents d'élèves boobu contribution bi nga xam ne moom la waaw jaxaw waroon na def ci seen seen contribution mu nekk loo xam ne ñoom ñu ko waroon ñoom ñoo ko waroon contribuer man personnellement maa ko defoon au nom de jaxaw ba tey CM boobu nekk tey lycée kon sa Jaaji Senghor yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko su ma waxee Jaaji Senghor sama xel dem dem day dem sama goro Sidi Boye Ndiaye mm-hmm. yàlla ko yàlla maa ngi nuyu au passage doomam Deni Ndiaye mi ngi ci kaw Deni Ndiaye moomu li tax ma waxaat ne jaxaar laa jaxaar laa bokk benn doom bu jigéen la am mu tudd Selbe Ñaadi Ndiaye sama soxla na am naa ak moom ay bant kon jaxaw gi am naa fi wàll leneen li mooy war a santaar yàlla ci jaxaaw ndax li nga xam ne moom la Bour Sine am mu am ay doom yu baax ay mag yu baax wax naa sànq monsieur le maire na ko sa prédécesseur yu ñu la defoon du ma fàttee góor gi Abdou Ndour góor gu baax la woon yàlla na ko ñu ñaan yàlla ñu fayal ñu doyen Bessar Bessar Bessar Bessar Fall yàlla na ko yàlla fay mais aussi di wax ne réalisation yi ñu fi def ku mel ni le maire Birame Touré gis nañ li mu ci place bii bu ñu nekk donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla ndax dëgg bi am na lu ci xam loo xam ne yàllaa ñu fi boole ñuy wax ne li am solo mooy ñu xam ne li ñuy dundal dafa jaadu Serigne Touba am fi cër Serigne Touba am fi cër mooy bu waa kër Serigne Touba leen cër ñi représenté Serigne Touba bu jox leen bii ngeen ñu jox muy nga yàlla ak jëmi Serigne Touba ñu ngi ñaan yàlla ci barke Serigne Touba yéen ñi taxaw bés bii suñu borom taxawu leen màggal leen yokk seen i maqaam ak seen i daraaja ñu ngi ñaan di waxaat encore di interpeller ñi nga xam ne ay nit ñu baax li dëkk ci jaxaw Abi Omel Diouf dinaa la cité nommément mooy sa Maykor Diouf Arona Coumba Ndoffène Diouf ñeen ñu ngi leen di interpellé di wax de liggéey ba la ñu tàmbul ci Fatick muy liggéey kër Serigne Bamba nga xam ne dañu ko war a ba mu mel ni war a mel te ci biir kër ga ñu def fa kees boo xam ne gën a ko tuddee Buur Sine Coumba Ndoffène ñu ngi leen ci tàllal loxo ngeen ñëw jàpp ci liggéey bi ndax ñu def ko ni waay donc ñu ñuy remercier au passage may sa maay góor ndax dugal na ci loxoom bu baax ñi ci ñu ngi leen di woo bàyyi wuñ kenn wax ji dafa bëgg guddi te tamit suñu waa ji jot ñu ngi leen sant di leen gërëm di jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp di ñaan suñu borom yàlla nañu yàlla fayal Serigne Touba te yeesal yërmande ci Buur Sine Coumba Ndoffène allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim monsieur le Merci d'être venu au nom du président de la République, son Excellence Bassirou Diakhar, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de tout son gouvernement à la tête duquel se trouve Ousmane Sonko. Nous sommes sensibles à cette marque de considération et nous vous en remercions bien vivement. au nom de l' association kontaan nañ ci trop waaye balaa ñuy wax suñu discours xam nga fàttaliku ko dafa baax bu ñu taxawee bi tey di ko wax di wax di organiser dafa am ñu jiitu woon liggéey ci liggéey boo xam ne kenn du ko na table ba yàlla moom leen kon bu ñu toogee ñëw fii dellu si di wax seen dañoo war a leen tudd màggal leen ñaanal leen yàlla xaraleen ajjana ci ñooñu dinañ ci lim colonel Sidou Boy Diagne dinañ ci lim colonel Mahécor Cheikh Diouf dinañ ci lim Mahfou Mahécor Diouf dinañ ci lim commando Fène Farba Diouf bi nga xam ne ne kon premier vice président de l' association léegi Njaw remplacé ko dinañ ci lim Farba Bodi Diouf mu nekkoon doyen association bi dinañ ci lim bu fam nga xam ne c'est un vieux compagnon du colonel Sidi Bouya dinañ ci lim it Nanette Diouf Aminata Henriette Diouf bu ñuy wax Tata taxawaayam ci màggal bi ku ne gisoon na te xamoon na ko kon ñooñu ñëpp ak yu ñu fàtte yal na yàlla teeru leen ak maanaam yërmande attaleen ci yërmande mu tàbbaleen ci àjjana gën a koy ñi nga xam ne nag ñoo topp ki ñooñu te yor continuité association bi ki ci jiitu mooy ku mu Ndofène Bouna Diouf wax nañ ko fi plusieurs fois du wax dara ci moom parce que famille ba bokk moo wax ci tur bi léegi donc soxlawul ñu wax ci moom parce que boppam lay defal waaye moo jiite association bi ànd nag ak boo xam ne bi dafa ay anciens ay nouveaux arrivants ñooñu tam seen bopp la ñuy liggéeyal mais mënuñoo bañ a lim parce que ren xawoon na metti tuuti ni mu ko waxee xaatoon nañ sax fa mu màggal bi def rek benn cérémonie récital de Coran distribuer tuuti aide andi ko fa yemale waaye ay doomu siin yu bokk ci siin bokk ci famille Coumba Ndoffène daal di jóg taxaw ne loolu du am loolu du am il faut ñun suñu bopp lu ñu mënta def kenn du ko kenn duñu ko defal kon ñooñu bu ñu waree taxaw fii tey war nañ cee tudd ñi nga xam ne ñi dajee def seen loxo bu mu fees ci denn ci ñooñu Abdou Karim Fofana mi nga xam ne ci kër gi la bokk ndax doomu ndey sanu surtout Kumba dem ci kër gi la bokk kon boppam lay defal bokk jëngu ne du ñu fomm gàmmu gi bokk na ci ñooñu colonel Basirou Ndiaye colonel de douane di doomu Sine taxawit nañu ah man tey dinaa ci def li mu mën ngir mu am jàppale ñu bu baax a baax a baax a baax ba ñu ma taxaw fii tey bokk na ki ñooñu colonel de douane Abdou Faye bokk famille Biram Jaxe moom itam bokk ñu jëngu pour jàppale ñu wax ne affaire bi mënul ñàkk am bokk na ki ñooñu Mamadou Mbodj Diouf bu Sogem bokk ci kër gi taxaw ne il faut mu def ci lim ci man ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba ñu am lu wees suñu njot ba tax lu ñu mënoon daaw mën na duñu toll ren ñu def ko di nag ah mënuñ ko bëgg a sant sax parce que fekk mu ngi fii daf ci noonu jàpp bu baax a baax bi président Macky Sall prof nag day gërëm ñamu daaw il faut ñu wax ko c'est parce que jógatu fi comme ñun ñun xam nga ñun fi ñu politique dañuy wax li xam ne moom ku ñu ku ñu jàppale ñu jàpp ñu wax la Macky sàll jàpp na ci fekk mu ngi fii nekk ba mu fi jógee teraw tey dafa yoon na mu ñëw indi seen njàppale bu dëgër ci xew-xew bi kon nag mënuñ koo bëgg a sant waaye nag ku aye wala sa moome la ñu wax moo tax mënuñoo bàyyi ñàkk a félicité président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ñu fa barki dem ci teetu bopp réew mi mooy suñu ndam parce que séeréer la parce que ñun dañu yaakaar ne saa wu séeréer foloo rek suñu ndam la kon nag dañ koy ñaanal mu dal ci jàmm yan bu oyof ci moom mu am ci Sénégal njiitam gii mu gisal Sénégal ay ndam yu weesu njortam kon ñu ñëpp ma ciy profité ak ñi mu àndal ñëpp nag te jiitu ca Ousmane Sonko mu yebal tey nag ku bokk ci ñun itam mu gën ñoo neexati muy Bakary Sarr di secrétaire d'État à culture mu taxawal ko fi ñëw beaucoup d'engagement pour wax ñu ne ci la bokk te incha allah dinañu taxaw kon monsieur le secrétaire d'État ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal nga may ñu nag ñu sant aussi gouverneur Seynabou bu bi ñu fi toogal li tax ñu koy sant moo di ne mosu loxo mosta génn ci lii te barki démb rek la ñu mujj convoqué Fatick CRD ñu wax ci cérémonie bi lépp lu mu ci mën mobiliser tous les services de l'État fii ci au niveau de Fatick ñu jàpp ci ba lii mën a am tey monsieur le préfet du département de Fatick yaa fi seen Seynabou Gueye ñëwul tey parce que dafa ànd ak délégation bi recevoir ministre de l'environnement yaa ko fi représenté kon nag yooyu tam sa taxawaay gis nañ ko merci beaucoup ki bokk ci ñun nag mooy sous-préfet de Ndiob dañ naan sous-préfet waaye moom mu ngi fi jaxaw <laughs> jaxaw la ay borom nekk te jaxaw la dëkk kon nag kooku ci ñun la bokk at bu ne def ci yëngatu convoqué CLD di jox njëgal di suivre ndigal yi gouverneur di joxe ci CRD bi pour que ah cérémonie bi mos am mën a am. ah bunt nag boo fay dugg dafa am bunt dëkk booy dugg rek am na bunt boo war a jaar jaxaw nag bunt bi mooy maire bi moo tax moo njëkk a wax moo ubbi di doom nag ki ñun ñëpp ñu di ko nuyu di ko ñaanal di ko wax ne gis nañu effort bi mu def ren jàppale yu jàppale boo xam ne mosuñu am jàppale bu tolloon ci biir jaxaw dëgg it nag wax ko dafay di loo xam ne dafa war jàpp na ci ren ca dëgg-dëgg ba tax ña nga fi ñu jëm bi noo ñu weesoo waa kër këru diine yi ki ki jiitu di Sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides na ca Tuuba ba mu tàmbalee jàpp boobu nekk bul xalif nekk bul xalif sax ba mu tàmbalee jàpp ci lii mu daan ñëw di yónnee délégation bu ko fi représenté ba bi fi Sidi Boye jógee ak Maykoor mu yónnee délégation mu noonu jiite dëj ba jullee ko ñaanal ko te xam day ñëw ci jàng yi at mu ne kon kooku am na nañ ko njukkal parce que taxaw na taxaw yi maamam taxaw woon ba si Bour Sine ko mu xam ne Bour Sine woon na ko mu di doxal diggante bi kon ñu ngi koy sant di ko gërëm daf ngaa mu yàgg lool te ànd ak wér waaye nag ba ñu sos affaire bi Touba daf ñoo booleeg suñu benn jawriñ muy sëñ Saliou Touré bu Thiès moom la ñu booleel nañu kooku moom laa leen booleel Serigne Saliou Touré mosta wuute fekk yaramam kër ne mosta wuute fii da daan ñëw ak dooleem kattanam alalam ay taalibeem ak xam-xamam ñëw fii yenn doog ñun fanaan ñun yéen da war ñun tànt bii ñu def tey ba mu yegg si fii ñoo ko doon tànt ñoom kon nag kooku fa mu tëdd tey yal na yàlla yokk leeram yal na ko yàlla xare àjjana te taas ñu ci barkeel suñu xel itam mënta ba nga ñàkk dem sëñ Abdou Aziz Sy junior am na ko fi wax léegi ci ñi ma jiitu li boole si Abdou Aziz ak kër gi dafa ni dafa bokk ci kër gi parce que yaayam ci kër gi la bokk maamam Selbe Diouf fii la bokk te mosuñu mosu la ñàkk bi ñu ko fàttali suñ demee Tivaouane mën nañu man ci yéen la bokk da nga dem sax bés ah wax na ko léegi du ma jarul ma ciy ah, jaaraat ba ba géwél yi dee woy yi leen aay da leen fii këru diina la mooy leen déedéet bàyyi la ñu woy parce ci ñii ci ñoom laa bokk loolu ñun ñoo ko seede kon moom itam xam nga tey yàlla na ko gënal fi mu jóge représentant eglise bi saa woo mosee am li day ñëw taxaw ak ñun ñu ngi koy remercier xalif général des Layènes digganteem ak Boury ko mën Ndofène ku ne xam na ko bu ma nee Layène Gossas rek ñëpp xam li tax li mu jox ko rek mu Ndofène Gossas parce que jox rek toll ni may ko ab dëkk ci royaume Sine muy Layène fële ci Gossas tey am na fa benn institution bu mag bu ñu fa def te loolu digganteem ak Boury la woon. léegi dañu am association boo xam ne dañu dañu am jumelage association bi ak association layeen yi ba nga xam ne ak mu nekk li ñu organisé dañu ciy boole li bu ñëwee ñu teral ñu tatagal ñu war ñu ne li seen maam defal suñu maam fàttewuñu ko te xam nañ ko kon ñoom itam ñu leen di nuyu. waaw kër Maba Diakhou waaye dama ciy xam ba pare. waaye nag du yemuñ foofu rek ku ñëwoon démb ca euh, nuyu di partage dañoo am benn thème bu ñu tuddee woon Coumba Ndoffène mooy Sénégal parce que famille bu baax Sénégal rek bokk nga Coumba Ndoffène dara muy waa kër Cheikh Oumar Foutiyou Tall di waa Niassène di waa Ndiassane di waa Thiénaba ak ñi ma jënd tuuti léegi kon dafa baaxoo baax mën na weesu loolu. waaye nag dinaa dellu nag di gërëm population bu siin ndax ñoom ba dara dul dara ñu ñoom la woon ba tey jii mu yegg si fii ba koo gis naw ñu koo gis ñeeñu parce que benn buur ci Sénégal moo am màggal muy buur Sine Coumba Ndoffène te waa Sine ci jàpp waa Sine ci jàpp buur gi gan mu teeru leen teral leen tatagal leen génn sëriñ nekk wax leen ko ñu leen ciy sant waaye dina waxal seen bopp ngeen ko defal ak seen maam ngeen ko defal jërë ngeen jëf lii ñuy def tey nag dañuy fàttaliku rek ak won xale yi yoon yoon bi ñu leen di won nag moo yoon ba nekkoon ci diggante mën sirk Mandofeen ak Serigne Touba ndax ñaari nit la yoo xam ne boo boolee seeni valeur ñoom ñaar def ko ci nit la nga ca yaakaar duñ ko am parce que l'islam dafa ñëw fii Siin fekk fi cosaan ak aada ku xam aada ak cosaan xam ne dafa am aada yu baax ak aada yu bon l'islam ñëw xeex aada yu bon ya dëgëral aada yu baax yi tey li ñuy commémorer tey ci aada yu baax yi la bokk mooy jom ngor dëggu fit ak bëgg dëgg te xam dëgg loolu fi la ko lislaam fekk da koo dëgëral rek loolu ku ko ku ko boole boole ko diine nga xam ne man sëñ Tuubaa mu wootee def ko ci xale yi loolu ci bëgg di ko am loolu la ñuy yóotu moo tax ñu organiser cérémonie bi at mu nekk pour won xale yi ne am nañ feneen fu ñu mën a jaar fu dul ci réseaux sociaux yi di saaga wante di xuloo di xeex ak alkaati yi dama ko dikk li ñu war a def mooy topp diine topp seen cosaan la ca baax boole ñaar ñi jëm fa ñeen bëgg yóbbu parce que seen i mbokk seen i foofu lañ bëgg ñu dem loolu daal lañ ma waxoon na naa ko fàttale mbooloo mi ma leen sant di lu ko dëgg nag ci man la lu ko jub nag ci yàlla la parce que su ma wax ci sant sant autorité yi nga xam ne ñoo fi ne ki ci njëkk mooy le ministre secretaire d'État Bakary Sarr teg ci autorité administrative wu région bi di gouverneur Seynabou Gueye wax nañ ko fi préfet département Fatick ak suñu sous-préfet ñu koy wax sous-préfet de l'arrondissement de Ndiob boole ci nag les élus chef de village yi ak waa Sine yëpp duma fàtte nag suma bopp suma bopp mooy Linguère bu Ndiaye dalal ak jàmm yàlla na yàlla sàmm yàlla na yàlla musal si seytaane musiba balaa cat ak làmmiñ fiñ bëgg nga jëm yàlla na fa su ma wax dana bëri du bëri ndax dinaa wax ci association bi dinaa wax ci sécurité bi mais dinaa wax également ci culture parce que man actuellement loolu moo ma ñor association bi ñu ñëpp ci lañ bokk wax nañu ne màggal bi tuuti du am warul mën a ne waruñu compter ci kenn pour suñu màggal ku ci ne da war a jàpp li nga xam ne moom ngay tiitaroo muy Buur Sine Coumba Ndofféne dem naa fi Touba ren kenn yëguma ma ànd ak su ma sang bëre Omar Baye man ak moom ñu toog ak sëñ Muntaxa ma yóbbaale benn mémorandum lan la ko dama ko ne sëñ bi magalu jaxaw bi ñun ñëpp ñoo ko bokk waa Touba ak ñun ñoo ko bokk te ay nit bu ñu bokkee dañu yëgoo soxla nañ kër Touba yéen aussi war ngeen am kër jaxaw ci seere dama am ñu ma seere maa ko doon wax ci commune kanam yi Omar Bayo te bu ma baree te sëñ Moustapha Bale la ñu yóbbu ma ne ko i mbokk lañ lu xewati di yéen nañu yëg te bu ñu yëwee ñu teg ñu fañ ñu war a teg lu xewati si ñun ñu wax leen ne ñëw leen ñu ngeen doog ak ñun sëñ bi nekk nit ku baax xam li ma ko wax ñettee point bi ma ko wax dama ko ne at bu jot bugg naa jiite waa Sine ñu ñëw Touba te amul xaj ak seen ñëpp laa bëgg ñu def ñu ànd ak moom suñ diggante ak loolu jar na association bi waratuñu compter ci nit pour defar magal bi bu ne sa kër war nga mën a jël en charge sa bopp wala duñ ko mënul ñu jàppalante ku ñëw fekk ñu si alhamdulilah ku ñëwul fekk ñu si ñu def suñu màggal loolu mooy association li ci des bi may laata ñëw fii dama jël suma oto ànd ak suma benn rakk bu ma seet si bu ba ma di Moussa jóge Banjul nekk assureur fan laa demoon Ndofane Nomade laa demoon ci xabru buur sin ko ma Ndofane bu mag ma dem wër koo gis goudron bi ñu def ko mais day ñun am nañ loo xam ne war nañ ko fa def kenn duñu ko defal ku ma weddi nag na dem man de dem naa fa tey dem naa fa tey de mais ñun ñëpp war na ci jàpp beneen bi mooy monsieur le secrétaire d'État ministre Mbagnick Ndiaye moo defaroon foofu en son temps bëgg nañ sa loxo dugaat ci wala sax nga doxantu ba foofu boo fa doxantoo di nga xam ne ministère de la culture war nañ am luñ fa mën a def waxuma ne nag ñun duñ def de ma dem ci sécurité bi jaxaw am na gendarmerie fu mu ne tey wax naa commandant bi war nañu fexe ñum ñu nekk ay kilifa ñu fexe ba problème yi du demati gendarmerie problème bu amati nañ ko fay balaa mu egg foofu mën na ne parce que ñun ñëpp a bokk loolu mën na ne maa ngi ci profité d'ailleurs di féliciter ñi nga xam ne ma dama ne les forces de sécurité war na leen njukkal ñi nga xam ne ñoo yore santé bi war na leen njukkal ñëpp képp ku ñu jàppale ci màggal bi ñu ngi lay gërëm jaarale ko ci gouverneur Seynabou Guèye wax naa association bi wax naa sécurité bi culture bi moom moo des jaxaw de lépp luñ mën a def pour culture bi am doole mun nañ war nañ ko def ndax jaxaw nag loolu lañ ko xame amuñu pétrole amuñu leneen lu dur li ñuy jaay mooy li fi suñu maam yi def te bàyyi ko fi kan lañ mun a wax Buur Sine Coumba Ndofféne bu ndaw ak bu mag am na ñu bëri xamuñu ko mais Bour Sine Coumba fen bu ma bu ndaw bii du ma dellu ci li ngeen wax nañu góorgóorlu si suñ biir nañu juboo suñu biir jàppalante lu yàlla def ci nit ñëpp nangu yàlla moo fi ne man yàlla la gëm gëm ma leneen te ñi ma xam xam nañ ne ku gëm yàlla la lépp lu may def yàlla laa jiital dañ jàppalante joxante loxo amul dara lu ñu mën a surtout ñun séeréer li ñu am ci Sénégal kenn amu ko nañ gëm suñu bopp ñun séeréer jàppalante liggéey ku fi nekk Sénégal ñun nga yaakaar man maa ko wax maa ko wax nag ndax dama bokk ak Sénégal yépp dama bokk ak lébu yi nekk séeréer dama bokk ak waa bokk ak ñeneen ak ñeneen te gis ngeen li may dox dem naa Casamance fukki oto ak ñeent trois cent personnes ñu jóge dix heures egg fa trois heures et demi lu ne mënoon na ci fekk mais nag payu Casamance moo ko jaral li des dinaa dem Fuuta bu neexee yàlla danaa fa dem parce que nag Sénégal ñun ñoo war a dox li nga xam ne mooy moo fi jàmm te yaakaar naa jàmm am na fi de demoon nañ ne ba nga xam ne ku ci ne si ñun yaakaaroon na ni Sénégal du jógati mais nañu ñaan nañ ñaan yàlla bu ñaanee yàlla yàlla def ko mais yenn yëpp ay caaxaan affaire bu gudd na maa ngi leen di jégalu di leen baalu àq mais lii dafa nekkoon lu nekk si man mënuma ko bañ a génne ku ma xam xam ne jaxaaw daf ma mos ñor siin daf ma mos a ñor liggéey naa farmeenu at ak ñett lan moo ma desee jaxaaw siin ak séeréer yi maa ngi leen di nuyu di sant di leen gërëm Buur Sine ñu ngi lay ziar di ziar kilifa yi fi daje yépp muy kilifa diina muy kilifa aada muy yeneen kilifa yi fi daje te eh, xamuma leen maa ngi nuyu ñëpp. ci ndigal ak ci kàddu président de la république Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko dañu ñëwoon tey ngir màggal ak yéen ngir it fàttaliku li xewoon diggante Buur Siin Mandofeen ak Xadim Rasul muy jëf boo xam ne euh, niñ ko mën a xayma tey ci li ñu mën a jàpp ne mën nañ koo dem tàttaan ci loolu li ñu def muy fulla muy fayda muy dëgg ak fit muy li ñu mën a jàng ñu war a jàng continue di ko jàng continue di ko roy tey jeunesse bi ak ñi topp ak ñi topp war nañ mën a dem di tibb foofu kon eh, li tax ñu koy magal tey dafa fekk loo xamante ne xew na ci histoire Sénégal ñëpp war cee jàpp ñëpp war cee euh, téye bu baax ndax loolu mooy tabax suñu identité loolu mooy tabax li ñu li tax ñu moom suñu bopp loolu moo tabax li tax ñu dëkk ñun ñëpp bokk nekk nañ bokk dafa ñëw sàkku si waaye indaale barke ndax xam na ne bisu maam bii di sunu maam Buur Siin xam na ne dëggoom nga ma amoon dëggu ga dëggu ga ca barab ba dëgg jafee mu yëkkati kàddoom yu rëy ya ba tax tey jii na ma ne sànq ci suba li xew daaru ci xalëf xalëf ji xew daaru salaam ci xalëf xalëf ji xew mbakk xajoor ci xalëf xalëf ji xew feneen ak feneen ak feneen dara waral ko lu ngërëmal sëñ Tuubaa rek ngay am murit yi ñëw siyaar waaye bi nga toogee fii xalëf xalëf yu bari nga ni bàyyi leen la ma génn ci yow déedéet maanaam sa laabir gi sa woyof gi sa mbaax gi waaye nag nii da nga doon demee de ndax bu fekkee Seexul Xadiim sa maam nangu bëtam yërmande mo ak lu mu liggéeyal yàlla ngir jàmm ñëpp am jàmm ak tawfeex ak texe soo nee damaa ñëw indi si barke chaque soirée barke loolu day dal xel de ndax dara sabu ko nag lu kon ñun jàpp nañu ko ñu teg bët ñëpp suñu borom dina leen dimbali ba seen aaju dina faju seen xol dina sedd seen jàngoro bi dina toxu يا الله يا ذا الأرض والكرسي سلي بتسليم الواي يا رب سخ بجملة المطالب bila hisaabin bin niqaal na ñëpp toog ngir yàlla badiw saqir liya kulli saari wa kulli yawmin bi nabi fiiri allahumma fi qiyaasi biman jaaltu diya in yaasi unsur janaabi inda sayri wa xadar walaka qadribni bi jaayi ibni mudar tafaddalan علي يا ربي أنصار فيك وفي خير الورى نور النشار تيب فؤادي برود سبي لي أبدا بالمنتقى من كعبي يا الله يا سل الأرس والكرسي سل بتسليم الواي يا رب سغل جملة المطالب بلا حساب بنبي من قالب بديع سقر لي كل ساري وكل يوم بنبي فيري يا خير ناصر وخير مالكي انصر مالك ني بابن مالكي خبيعتي وعيستي والندر كونك لي ولي يكن بندري رل الإداء ولياب جنانا بالمصطفى المختار من كنانا أيمن هو المختار هو دنيا وأخرى خير ما أقدر هو أبلي بجاه من هو المختار هو دنيا وأخرى خير ما أختارها واجعل حجابا بيننا وبينها كل آسا والتكفي أن الأين يا الله يا نسير يا جليل إني حقير مهدم سليل فلتغنني بك وهب لي العرب بمن على جملة حجم وعرب سيدنا محمد سيدنا محمد baabil fala wasilati ilayka fi nayli sala wasalliyan wasalliman alayhi wa kulli man xaddintama ilayhi waxfir sunubi wa amali waliyahab xayran munan wa amali nga salaatu wa ala rasulillah yàlla na ko sëriñ bi nangu tayib fuwaadi bi di saabi lii abadan bil muntaqaam nikaabi yàllaaw يا ذا العرش والكرسي سل بتسليم على الواي يا رب سغل جملة المطالب بلا حساب بنبي من قالب بديع سقر لي كل ساري وكل يوم بنبي فيري يا خير الناس olof naan lu tëgg tas waaye bu neexee des si xol ya muy xitaamuhu misk wa fi dalika falyatanafasil mutanafisun kon bis bi nga xamante ni tey moom lañ àndoon ak yéen ca suba ba tey ñu taxaw ci ay tomb yu ama am solo muy seede bi nga xam ni ne Buur Sine Coumba Ndofféne defoon na ko Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu mu doon seede bu am solo di seede dëgg di seede boo xam ne des ni yàlla rek moo tax waaye seede boo xam ne seede ngor la loolu nag mu jural ko mu am gàmmu màggal goo xamante ni tey benn la ci àdduna bi loolu it aussi mu jural ko mu am kër gu ñuy fàttaliku waaye mu jural ko barke jural ko tawféex jëloo ko lépp loo xam ne tey moom moo waral loolu kon ngeen gis ci suba ba tey jaar naan euh, fi nga xamante ni tey mooy buur yi fi mës a nekk yëpp tàmbalee ko ci Wasila ba ci ki nga xamante ni tey moom lañ tëjee euh, muy euh, buur Sine Mayakor gannaaw ga aussi taxaw nañ ci ay tomb yu am solo lu mel ni bisik rolam ak jaraaf yi ak témoignage bi nga xamante ni tey Buur Sine doo feen defoon na ko naka la demee woon yooyu yëpp ay boroomi xam-xam yu amoon solo ñu ànd ko ak ñoom mu doon bis bu am solo bis bu riche boo xamante si ni yaakaar naa képp kuy sénégalais war nga ci mën a bàyyi xel waaye ñuy beral sant spécial bisik mi nga xamante ni tey mooy gàllaaju tere mi waral lii nga xamante ni lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu culture lépp lu jëm ci wàllu yar lépp lu jëm ci wàllu siin da koo jaral bu baax a baax moo tax mu déplacé équipe bu mag bu am solo bañ couvrir ko journée bi mu doon journée bu ama am solo boo xam ni àdduna bi ñëpp war nañ cee jàng muy bis xam-xam di bisub ngor du bisu fit du bisu jom du bisu fulla muy mbir moo xamante ni ñëpp war nañ ci mën a bàyyi xel waaye nag loolu lépp day delluwaat ci cheikh na cheikh ahmadou bamba radiallahu taala anhu moom mi nga xam ne daa lépp jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko dammi wa ahli wa awlaadi fidaun lahu moo taxit àdduna bi yëpp jël seen xol seen xalaat jëmale ko ci moom kon mbokk yi fii la ñuy wàccee kàddu yi incha allah ba beneen yoon wa rahmatullahi taala wa barakaatu.